di félicité bu baax ASC mag bu Saxañ ci victoire bu yaatu bi nga xam ne am na ko mais aussi di encourager ASC Renaissance bu Njaañ ko woon di wax ni tey c'est la commune de Ndiago qui a gagné c'est la jeunesse de Ndiago qui a gagné donc kenn perdul ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp gis nañ teewaayu ñëpp département bi kilifa yi ñëpp a teew maire Ngélo léegi la fi jóge monsieur Dame Diop Mamadou May maire Daramos léegi la fi jóge la euh, délégation Yaye Fatou Diagne qui est ak délégation Mamadou Faye aussi gis nañ premier adjoint au maire Ibrahim Diouf le premier adjoint au maire de la commune de Gagnic représente représenté Malick Ndiaye mais aussi premier vice président du conseil départemental Maymouna Sow mi représente monsieur le ministre Pape Malick Ndour mais aussi gis nañ fi qui Ndiaye départemental de la cogère de Guinguinéo aussi gis nañ ko conseil municipal bu Ndiago conseil gi ñëpp

ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm au nom de la commune de Ndiago bi yëpp di gën a ñaax ndaw ñi nag vraiment commune bu Ndiago commune la bu ànd dal gis ngeen ni mu final bi ni mu demee amul benn coow ñu def ko dans le fair play vraiment que le meilleur a gagné ki ki ki ñàkk aussi ñàkkul mën nañu wax ni jeunesse bi yëpp ñu ñoo gagné donc vraiment loolu lu ñuy rafetlu la di gën a ñaax ndaw ñi ñu gën a fonk kilifa ñu gën a liggéey xam ni ci loolu ci la développement man a am te loolu yaakaar na am nañ ci yaakaar bu baax fii ci commune bu Ndiago en tout cas ñi ngi sant ñëpp képp ku fi ñëw titre boo fi mën di ñëwee vraiment amuñu sa fay ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm denn wax ni commune bu njaago waa ODECA bu Guinguinéo aussi gis nañ fi coordonnateur euh, le le le secrétaire général aussi ñëw na ak waa CQRP département gi ñoo ñëpp gis nañ seen teewaay mais aussi di sant aussi le président de la zone Babacar Gueye vraiment amuñu fayam parce que depuis des années mon mooy coordonner activité fii ci au niveau de la commune de Ndiago chaque année da koy defee vraiment Nous nga xam ne noonu lañ ko vraiment président ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ak sa membres yi nga xam ne nga bi mais aussi di sant conseil municipal bu Ndiago parce que tey lii tey buñ ko mënee mën nañu wax ni ñoom ñoo si jàpp mais aussi ak service technique lu mel ne gendarmerie vraiment ak commandant ak ñi nga xam jóge ba ñëpp vraiment ñu leen di remercier ak waa Croix-Rouge fàttewuñu leen mais aussi arbitre yi fàttewuñ leen ñoom ñëpp vraiment gis nañ ñi nga xam ne jàppe nañ ko ci nawetaani nawetaani njaago yi fii moom yaakaar naa bu ngeen seetloo depuis 2014 ba léegi vraiment ay terrain rek lañ fiy defal te loolu su amee yàlla dafa def ñu am un maire jeune koo xam ne dafa yàgg yëngatu ci ay activité nawetaan man fii lu ma fi def xeeb naa ko stade bi bi ñu ñëwee gis ngeen ñu ñoo ko taxawal xeeb nañ ko stade bi tey bu ñu sañoon dana am ay tribune bu sañoon dañoo gën a defaraat ba mu gën a nekk norme ba mel ne stade yi nga xam ñoo nekk Kaolack wala yi nga xam ñoom ñoo nekk chef lieu département bu Guinguinéo jënd nañ xaalis bu takku ba romb nañ sax li nga xam defoon nañ ko suñu budget loolu lépp buñ ko defee ñun ay doomu njaago lañ fi lañ juddee fi lañ jàngee donc même bu doon fekkoon nekkuñu ay maire sax dañoo am benn redevabilité donc à l'endroit di commune bi nga xam ni fi lañ juddoo suñ lépp fii la vraiment lu ñu fi def dañ koy xeeb di gën a ñaax ndaw ñi rek nañ gën a jàpp incha allah bu ñu jàppoon ñëpp ñu àndandoo yaakaar naa ku seetlu njaago avant 2014 ak léegi di ngeen gis ni changement bu bëri am na te incha allah noonu lañ koy jàppee ci affaire sport ci affaire jeunesse éducation ci affaire développement d'une manière générale. di gën a lancer message rek comme ni ma ko defalee fan yi euh, jeunesse bi nañ def ndànk parce que yaakaar naa tey solution bi du gaal yi te réew mi aussi naqariwul naqari boo xam ni jar na ngay dugg gaal di sacrifier parce que déjà nga dugg gaal am nga 50 pour cent nga des si géej gi. te wax dëgg yàlla liggéey mi ngi fi mbay mi ngi fi sàmm gaa ngi fi entrepreneuriat mi ngi fi te wax dëgg yàlla ku gis ak xëy ndaw ñi gis nañ emploi yi nga xam ne am nañ fi vraiment ni ngi ñaan jeunes yi nañ ànd ak dal ànd ak seen état incha allah dana taxaw ci seen seen i jafe-jafe vraiment ba mën mën a am xëy ñu mën a satisfaire seen besoins yi moo gën ñu jël di sacrifier seen bopp di dem ci gaal gi nekkul la la bonne solution